naka lamb ji ak réew mi waaw lamb ji de ñi ngi sant comme del si waat nañ ñu commencé waat bëri waat ñi ngi sant bu baax réew mi di ñaan yàlla rek suñu borom dolli jàmm ji kenn ku ci xekk xam ne les responsabilités sont partagées muy ceer mi yor micro jàmmi réew mi ci moom la njëkkee kañ mi wax jàmmi micro jàmmi mi ci moom la war a njëkkee donc mu door a jàll nag ci étape supérieure yi dem ci njiitu réew mi dem ci opposition bi dem ci ndaw ñi dem ci kenn ku ci nekk ci ci réew mi jàmm dañ koy sàkk suñu borom may ñu ko yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi parce que quoi qu'on puisse moom doo nga ñu jik kon yàlla na ko yàlla def. tey gaa ñu fi doon tëgg 2006 ay 2007 tey boo toogee di xool lamb bi ngi dox wala am na lu des. non lamb 2006 ak lamb bi léegi moom c'est diamétralement opposé ndax bu njëkk supporter da nga koy compter da nga daan tëgg làmb amul joxe billet amul dara ci biir lamb ji ngay jaay li ngay jaay boo génn yóbbaale sa xaalis amul menn mbër mu lay joyal billet pare xam nga des fois da ngay dégg ñu wax waxu promoteurs yi jox mbër yi mais est na ne promoteur yi topp ci ginnaaw mbëri di jël seen xaalis moo gën a ëpp téeméeri junni yoon bu làmb jeexee man jamono bi may tëgg laalo wax ba nëgg ni ay mbëri sama xaalis ci làmb yooyu te may naa leen ko ci xol bu sedd guyu léegi li ci am solo nag mooy nañu xoolaat aspect aspect bi ñu koy defee nan lañ koy mën a ñoŋalaatee ñuy tëgg làmb autrement di fexe di créer parce que diggante bi jamono daf fi dox nan la ñu mën a fexee ba revenir à sponsor yi indiwaat leen mais loolu ci organisation bu baax lay doon ndax

c'est un pur produit de la lutte man làmb su doon nit la dama ko war a jox àllarba mais comme gisuma ko lamb laa gis ku koy tëgg war naa cee mën a jàpp ndax jamono bi ma koy tëgg damaa bëggoon ku ma jàppale su ma demee ba man am sama déem wala daxaar damay jàpp ne njambaan dama ko cee war a sotti rek pour mu saf ndax njambaan lee ma may ma xam te ku mat waaw. structure bu bees génn muy e 2 ñëw ak macha allah combat yu neex fii bala Balla Lac Rose ñàkk a jëriñu caatu Yoff la jógee. waa xam nga ETDR Events un an ngi nii ci ginnaaw ñu ngi koy waxtaanee di ko xalaat ak ñoom Sam ñoom Mor ñoom Góorandooy ñoom Xaadim Anta Seck ñi nga xamante ne bii ay kañ kañ yu taxaw lañ mais lépp loo gis nag dafa am fu muy féete man sama yoon nekkul ci ETDR Events am na ñu ko yore d'ici peu de temps ñi ngi waxtaan bu ñu waree génn communiqué ñooñ dinañ génn ñu xam ne ETDR Events ñii ñoo ko yore mais comme ni ma la waxee woon rek à chaque fois ñi ngi jéem a xool nan lañ mën a delloo mbaatu ca ndaala muy fay làmb lim ñu defal. moo waral ñu sponsorisé moo waral ñu créé ci biir ETDR ETDR event jox ko ay nit ñu doxal làmb. donc fii sa avis yooyu fii sa Balla Lac Rose ñax xam ne làmb ji demagut fenn coow li commencé na. waaw loolu nag moo tax ñuy tëgg làmb loolu dafa lay wanal ne la biir ETDR event ñi ci nekk ay crème làmb lañ te defarkatu nag bu takkee ba dugal ci frigo bu la jaayee nga xam ne neex na. naka làmb jaag la waaw sant yàlla rek di ñaan réew mi suñu borom def fi jàmm di wax ne yàlla na ko suñu borom def mu dal ba kenn ku ci nekk ma activité ya nga doon def yëpp sun borom ñu tegu ci yoon ñëpp kenn ku ci nekk jariñu ci daal. Idaaly ak lamb nga jóge fi ci ay journée yu neex mais ñu jékki-jékki Idaaly xaw a def stand by lan mooy problème bi lan la. waaw lamb dañ ci gis ay melokaan yoo xam ne melokaan yu nu neexul la. waaw tey ñu am waaw lamb biir lamb dafa am lu nekk loo xam ne tey mën naa ne lamb ñun ci biir lamb ñoo yàq lamb waaw lamb dañuy wax jox micro ku wër te wax muy wax ci lamb. ñu wax ñu war a wax te lamb bokk loo xam ne maam ñu bokk ko ñu ndaw ñoo ko bokk war ko defar mu dox mais ñi ko bokk ñoo ko yàq waaw ñoo ko yàq ndax euh, lamb dañoo war a nawlante ñun ñëpp ñu de xam ne gis nga ànd ak kañ yi taxul kañ yi dimbali la de wala ànd ak Birahim taxul Birahim dimbali la ñaar ñu suñu borom boole ñuy ànd kenn ku ne daa amul lay jariñ sa morom lamb ñu gis ci melokaan yoo xam ne yow su may ànd ak am na ñoo xam ne daf leen di te du noonu yàlla mooy boole kenn ku nekk am na ñoo xam ne ñoo war a ànd am ñu war a àddina ñëpp mënuñu ànd lamb nag bu ñu àndee ñun ñëpp mu métier moo xam ne kenn ku ci nekk da ngaa dem jëli andi lamb ñun danoo ñun ñëpp kon buñ ci nekkee war nañoo oyofal mbir ba kenn ku ci nekk maam boo gisee sa mbër sax bu promoy tëgg événement boobu nga ñaan mu réussir boo léegi mu mën a ñëw ndax tey promoteur yi li tax promoteur bu tëgg ren bu déwénee mu daw ci biir la waa lamb tey booy ñëw dan lay tàccu mais booy boo dawalee benn ñaar waaw boo duggee ci biir rek après ña ngay tàccu keneen kuy jëw ku ñëwagut kon ñooñu ñoo yàq lamb ndax lamb boo ko xoolee yàqu na ci biir CNG yàqu ci promoteur yàqu ci amateur yàqu ci journaliste ndax tey journaliste bi pro may am na benn promoteur bu muy gën a favoriser bu bokkut ak promoteur bu ndaw bi journaliste yi ci boom am na promoteur yoo xam ne tey tey bu Samba Mbaye dee tëgg Samba Mbaye la ñu gën a favoriser ndax comme yi daal te noonu waaw ndax loolu lamb da nga comme da ngay defar yow waroo cee xool intérêt Samba waroo xool intérêt yi daale xoolal yow mi journaliste bi li sa intérêt pour jëmale la kanam tey CNG da ngay dem tey CNG di wut dat ñoom dara yoo xam ne xool ne Kandji promoteur bu mag Sam promoteur bu mag Sam dimanche yi daal ñu koy wurale mercredi ak jeudi kon loolu yàq na bokk na ci yàq lamb Bira Sène dafa nekk ne dafa war a tëju warul ubbeeku 100 pour cent ndax Bira Sène ku ko soxla rek wax moom loolu itam loon loo ne bokk na ci yàq waaw dafa yomb waaw ku ku ne ngay waxal waroo wax moom Alioune Sarr da xam ne lamb nekk tëju woon te xam ay secret beneen bi ci topp mooy promoteur mën na jël mbër jox ko ñu dem bañ su démb maa ngi dégg làmb ju fi am ñu ne 6 heures 6 heures ci ngoon la mbër mi dugal médical ne mënut a bëre ay médical médical loolu dafa war a jóg ci lambo te lamb yi promoteur yi su ne dëggat lamb ñu dem ba seen CNG nas ko fa CNG tam nekk ku jël engagement am tey suñ dee joxe dat ni nga koy joxe Sam di ko joxe Mor Mbaye di ko jox kanj di ko jox Abdoulaye Ndiaye Baba Diaw ak keneen ku mu mënoon ak Pape Abdou Fall ak ñëpp xam ne ñoom ñëpp ñoo bokk licence bu ñuy jënd samedi bi ak dimanche bi bu ko Mor Mbaye jëkkee jël Gaston am am am ñu jox ko Gaston mais bu ne Gaston am na moyen yi daal ñëw di tëgg ñu jël samedi bi yi daal jox jël mercredi bi Gaston jox ma loolu dafa yàq lamb daal waaw lamb nañ ko defaraat maa ngi bëgg nag. Italie retour am wala. non déwén incha allah damay ñëw déwén damay ñëw retour bu garaaw sax incha allah. dëgg Yo, mamá,